tey dañ leen di jox benn kaaraange bu am doole lool te bari njëriñ lool te am solo lool kaaraange ci wàllu cat la kaaraange ci wàllu rab la ci wàllu seytaane la kaaraange ci wàllu liggéey la maanaam liggéey mën laa bañ a jàpp bu ko fekkoon sa yaram mën na koo fànq ba mu set incha allah loolu lan la yaasin ngay bind ñeenti yaasin la mbind mi nag yombul yombul a bind gaawul itam waaye koo xam ne jaral na la ko boo ci góorgóorloo rek incha allah boo demee ci daara yi mën nga fa fekk ñoo xam ne bind rek mooy seen métier mën nga leen jox ñu bindal leen ko wala itam mën ngeen jox ko ak ñun incha allah mën nañoo fexe ba ngeen am ko suratu yaasin la ngay bind ñeenti yaasin yu bokkul benn bu nekk danga koy ubbi baad awuz billahi min ashaitan irrajim bismillahi rahmaani rahim salaatu ala nabi boo jekku nga def ko ci première yaasin bi danga ci bind aaya boobu nekk ci suratul ahzab moo di wa radda allahu alladina kafaru bi gaydihim lam yanaalu xayran wa kafa allahu almuminina alqital wa kaana allahu qawiyan aziza aay bi ngay bind ci aaya boo bind ci suuratu yaasin par exemple boo bindee bismillahi rahmaani rahim yaasin wal quraan al nga taxaw bind aaya boobu innaka la minal mursaliin di ko def noonu aaya boo jeexal rek nga bind yaasin euh, waradallahu alladina kafaru boobu ba mu jeex nga am benn yaasin nga teg ne boo paree nga dem bind beneen yaasin beneen bi aaya boo def nga teg ca wa in yakaadu alladina kafaru la yuzliqunaka bi absaarihim lamma samicu zikr wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa illa dikrun lil aalamin aaya bi su ma juum muy suratul qalam suratul qalam aaya cinquante cinquante et un côté boobu na ko fekk muy ñaareel bi yaasin ñetteel bi nga bind ya nga teg ne nga bindaat beneen yaasin nga def ci aaya boo def nga teg ci suuratul falaq mooy qul auzu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri qaasiqin ida waqab wa min charri nafaasaati fi loqad wa min charri xasad qul auzu bi rabbi nnaas maliki ilaahi nnaas min charri lwaswaasi alxannaas alladi yuwaswisu fi suduri nnaas min aljinnati wannaas mooy saaru 113 ak 114 yaakaar naa fa la kaamil bi jeexee aaya boo def ci yaasin nga dugal ñaari saar yooyu nga jël teg ne nga jëlaat beneen fooy nga def beneen yaasin yaasin boo def nga teg ci ayatul kursi euh, ayatul kursi mi ngi ci suratul baqara su ma aaya 600 wala 600 aaya boo def rek nga bind ayatul kursi allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum laa taaxuduhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l ard man za alladi yashfau indahu illa bi idnihi yaalamu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuxituuna bi cheyin min ilmihi illa bima shaa wasia kursiyu samawati wal ard wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyu al azim aaya boo def ci yaasin nga teg ca ayatul kursi ba mu jeex nga am ñeenti yaasin nan ko koy sangoo ñaari forme am na ci benn bi yaasin bu nekk nga def ko cangatu boppam def ko ci siwo boppam wala butéeyu boppam soo xëyee nga laal ci benn bu nekk sangu diiru juróom-ñaari fan naan ci li ci gën balaa ngay tëdd mu mujj ci sa biir wala bu la neexee nga boole yëpp ñenn ñi tarixa boobu lañ jël moo gën a gaaw def ko ci benn siwo chaque jour balaa ngay tëdd nga naan ci sangu mu mujj ci sa biir nga wattandiku sangoo ko ci sobe alquran kenn du ko sangoo ci sobe bu dee jigéen nga daf la fekk ci ngant nga bàyyi ba set nga doog ko jëfandikoo jamono yi nga koy jëfandikoo loo wattandiku doomu aadama fu mu toll dafa war a wattandiku caaxaan wattandiku fo wattandiku mooy yàlla waaye rawatina boo demee ba toll ci am aajo di ñaan sa boroom nga gën caa góorgóorlu bokk na ci liy yombal ñaan ak càng mooy wattandiku lépp loo xam dafa jege bakkaar bakkaar dafa bokk ci tëj ñaan te bokk ci gàllankoor ñaan te bokk ci bloqué ñaan jullit war na ko watt bu baax a baax fu mu toll waaye kii ak soññ la rek nga gën caa góorgóorlu boo tollee ci di wut ñaan incha allah bu dee yooyu ñu tudd ñoo nekk sa gàllankoor yaakaar naa ne bu la ci yàlla dimbalee incha allah mën nga cee mucc bu dee bind ko dafa jafe ci yow comme ni ma la ko waxee wala am ko dafa jafe mën nga jokkoo ak ñun incha allah ñun defe naa ne li ñu koy ñàkk saafara bi bariwul euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu def ko hadiya ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam